mbokki jullit yi suñu borom tabaraka wa taala bu ñu taxawee ci diineem ji ci anam gi ko bëggee su boobaa mooy dox suñu diggante suñu noon yi borom bi nee na in tansurullaha yansurkum su ngeen dimbalee yàlla te mooy dimbali diine suñu borom ji tabaraka wa taala yàlla dimbali leen te borom bi ne nag in yansurukum allahu fala ghaliba lakum bu leen yàlla dimbalee kenn du leen kenn leen féete kaw kon loolu lañ ciy déggee mooy in tansurullaha fala ghaliba lakum bu ngeen jàppee ci diine yàlla ji tabaraka wa taala jàpp bu wóor ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéenay féete seen noon yi waaye kenn leen not ci kaw suuf mbokki jullit bu loolu weesoo nu ngi woon ci biir weeru koor weeru koor li ko tax a màgg mooy suñ borom da cee wàcc téeréem bu tedd bi nga xam ne alquranul karim borom bi nee na chahru ramadan alladi unzila fihi alquran borom bi tabaraka wa taala xamal ñu alquran jooju mu ngi ko wàccee ci biir weeru koor waaye mu ngi ko jagleel laylatul qadri borom bi nee na inna anzalnahu fi laylatul qadri guddi googu muy guddi laylatul qadri bi nga xam ne su borom bi tabaraka wa taala wàcce alquran nekk guddi gu barkeel borom bi nee na inna anzalnahu fi laylati mubarak mbokki jullit yi alquranul karim mooy téere bi gën a màgg ci téere yépp wax yépp wax ji ci féete kaw te gën cee mat mooy alquranul karim lépp lu mu xibaare ak dëgg la lépp lu mu diglee baa mu tere ko loolu da koo teg ci xerañ boo xamante ne nii mu nga bàyyi koo fa suñu borom tabaraka wa taala alquran léppam dëgg la ay neen amu ci neen jigéen ko fenn borom bi nee na laa yatihi lbaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi tanzilu min hakimin hamid alquran suñ borom da koo def mu nekk téere boo xam ni boo ko dee jàng di ko jéem a xam di ko jëfe dafay dundal sa ruux waaye dafa nekk téere boo xam ni yërmande la ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba tey mu nekk téere boo xam dafay saafara feebar ak jàngoro yi nga xam ni mooy nekk ci yaram yi waaye mooy nekk ci xoli doomu aadama yi téere la boo xam ni dafay orienté doomu aadama yi teg leen ci yoon wi nga xam ni ci lañuy ñuy mën a amee texe tey ëllëg waaye téere la boo xam ni dafay leeralal doomu aadama yi yoonu dëgg bañ mën a jàpp ci yoon woowu moytandiku lépp loo xamante ni safaan la téere boobu di alquran mooy téere bi nga xam ni làmboo na dajale na lépp loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxlawoo ngir seen adduna mën a jag wala seen alaxira man a baax borom bi nee na inna hada alquran yahdi lillati hi aqwam mu waxaat ni wa nazalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay alquran moom i mooy téere bi nga xam ni ku ko jàpp da ngay texe tey ak ëllëg waaye ku ko dum mooy wan ko ginnaaw da ngay torox tey ak ëllëg borom bi nee na wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yowmal qiyaamati ama mbokki jullit yi alquran jëflante gi ñu jëflanteeg moom suñu taxawaay ci alquran juróomi yëf la bi ci jiitu mooy di ko diglu suñ dee jàng alquran ñu diglu alquran di xerewlu borom bi nee na wa ida quri alquranu fastamiu la beneen bi ci topp mooy ñu di ko jàng borom bi tabaraka wa taala nee na wa rattilil qurana tartila bi ci topp mooy jëm koo mokkal borom bi nee na bal huwa ayatum bayinatum fi suduri alladina utul ilm bi ci topp mooy at tadabbur ñu settantal alquran borom bi nee na kitaabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayaati bi ci topp mooy jëfe alquran borom bi nee na alladina yastabiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana mbokki jullit yi bu ñu seetloo tey ci suñu réew mi nit ñi faxaat nañ jëm ci alquranul karim ci ñetti anam yi ñu wax ci ñetti anam yi jiitu woon mooy nit ñi ñu ngi yor seeni rajo wala seeni kaset wala seeni portaabal di teg alquran di ko diglu waaye ba tey nit ñi ñu ngi góorgóorlu yor seeni téere di jukki alquran di ko jàng waaye ba tey nit ñi ñu ngi def effort di ko mokkal kenn ku ne yaa ngi yóbbu sa ci daara yi di seet daara joo xam ni fa la programme ba gën a baaxe fa la gën a gaawe ngir sa doom mokkal alquran karim ku sa doom mokkal alxuraan nga defal ko feet gu mag jàngalekat bi toujours mu ngi kontaan ci li muy produire ci ay nit ñoo xam ni mokkal nañ alxuraan at mu ne mu ni am naa nangami kaang wala nangam ni mokkal alxuraan ci diggante góor ak jigéen waaye nag ñaari mujj yi nga xam ne mooy settantal alxuraan ak jëfe alxuraan moom gis nañ ni moom dafa deltu ginnaaw lool te nag amul sikki sàkka ni jubluwaay yi taxoon suñ borom tabaraka wa taalaa wàcc alxuraan bokk na ci li ci gën a rëy mooy settantal alquran ak jëfe alquran xam li alquran di tekki xam li muy firi loolu mooy dimbali nit ki ci settantal alquran settantal alquran yooyu mooy tax nit ki mën a jëfe alquran jëfe alquran nag mooy indi texe tey ëllëg ndax nekkul ne ku jàng alquran rek da ngay texe waaye faaw nga jëfe alquran jëfe alquran nag li koy may nit ki mooy muy settantal settantal googu nag faaw nga jàng xam maanaay imaamul xasanul basri nee na alquran jii de nit ñaa ngi koy jàng mag ñaa koy jàng ndaw ñaa koy jàng waaye ñu ci gën a bëri xamuñu li alquran di firi te nee na alquran settantal ko dégg dëgg mooy nga jëfe ko waaye nee na du caagin mooy nga mokkal kaamil bi par araf araf wala par baat baat wala par saar saar wala isib isib te fekk booba la yàlla santaane yow sa yoon nekku ca la mu tere sa yoon nekku ca nee na léeg-léeg nga gis koo xam ne sax naan man de alquran man naa koo tari baqara ba naasi wala fatiha ba naasi te du ma ci gàkk benn gàkk du ma ci rotal wenn araf waaye fekk na rotal na alquran ji yëpp ndax moom la jàng jëfewu ko feeñul ci jikkoom feeñul ci jëflanteem bu fekkee dafa mokkal alquran te du wax ak dëgg bu fekkente ni du mokk dafa mokkal alquran waaye dafay trahir bu fekkente dafa mokkal alquran te buñ ko lebalee du fay bu fekkente dafa mokkal alquran ba noppi di tar di waxtu julli juróom ca mbooloo kooku alxuraanam jariñu ko lu bëree bëri mbokki jullit yi jàng alxuraan settantal ko mooy may nit ki gindiku xam nga ne ki jàng suratul fatiha bisan nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daa dem ci keneen ku dul yàlla ni ko jox naa sama bopp àdduna ak alaaxira wala nga dem ci keneen ku dul yàlla ni ko man daal sa ngër mbaane lay sàkk soo ma xisee gërëm ma faalewu ma ko ma mere ah, kon yow iyyaka na'budu wa na nasta'in bi ngay jàng xamuloo ki nga xamante ni moom day jàng dafay woote woone moom sëriñu diine la wala kilifa la ci diine ba noppi ay nit ñaw jox ko seen bopp àdduna ak alaaxira mu d'accord ci loolu te mu ngi jàng ci alquran borom bi tabaraka wa taala di wax ne innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasabu jahannama antum laha waaridun kon alquran jëmee jàng kooku jëriñu ko dara mbokki jullit yi ibnul qayyim day wax ni alquran wàcce wuñ ko ngir di ko jàng kese ak booy julli nga tari ay saar ak fatiha ne yàlla da ko wàcce ngir ñu mën koo settantal settantal googu nag moo ñuy mën a may ak njub moo ñuy mën a may xam-xam moo ñuy mën a may jëf ju sell ju suñu borom tabaraka wa taala du nangu kon kii jàng alquran la war a doon yitteem mooy mu ànd ak toroxlu ànd ak settantal ngir màggal suñu borom tabaraka wa taala ak màggal waxi suñu borom ju tabaraka wa taala kii jàng alquran dafa war yëg ni teewlu màggaayu ki nga xamante ni moo wax alquran ji di suñu borom tabaraka wa taala yow mi jàng alquran nga teewlu màggaayu suñu borom tabaraka wa taala yow mi fiir alquran nga teewlu màggaayu suñu borom tabaraka wa taala waaye bari na njàng alquran yu ngeen a dégg ci jamono ji da ngay xam ne moom lii folklore la eh, waaye nekkul la nga xam ni moom mooy la yonent bi saasam jàngaloon ay saxaabaam kon alquran du téere boo xam dañ koy fowee mu mel ni comme yeneen xeeti téere yi wala yeneen xeeti wax yi nga xam ne bu ñu ko dee jàng daanaka doomu aadama yi du ñu yëg ni liy waxe suñu borom la tabaraka wa taala loolu erreur la fët bu mag la ci at yu mujj yi bu ngeen seetlu da ngeen gis xale yi am na aaya bu ñëw suratu yuusuf ñi koy jàng di ko fawe wa xallaqatil abwaaba wa qaalat hayta laka ak haytu lak ñi di ko façon boo xamante ni day mel ni yëf yi lu ñuy të lu ñu war a tëgg di ko fecc la laa sekkan loolu taxuloon yàlla wàcce alquran ki jàng aaya boobu wa xallaqatil abwaaba wa qaalat hayta lak lan la war a yëg foofu yusuf alayhi salaam jigéen ju taaru ju am alal joo xam ni am na daraja sàkk ko mun ko ma aadallah yow bis bu la jigéen sàkk woon joo xam ne jigéen borom taar la borom daraja la borom alal lu war a doon sa taxawaay boo dee xool sa portable ñu génne la ci facebook bi jigéen joo xam ni melu na war a mel lan mooy doon sa taxawaay taxaw di xool wala xaala ma aadallah kon loolu mooy dundu aaya bi waaye nag di ko di ko jàng ci façon boo xam day mujj mel ni folklore mel ni téere bi yàlla bi dafa mel ni yeneen xeeti wax yi loolu day tax nit ñi duñ respecté alquran loolu lu mat a bàyyi xel la mbokk jullit yi kon kii jàng alquran dafa war a màggal alquran loolu màggal gi muy màggal alquran ak settantal alquran mooy ubbi ab dëndam mooy leeral ab xolam boroom xam-xam bu jox Mouhamad Rachidida nee na bu fekkoonte ne jullit ñi dañoo saxoon di settantal alquran orientation yi ñëw ci alquran ñi koy jëfee. ne lama fasadat axlaaquhum seeni jikko du yàq ba mukk kon li yàq jikko yi tey mooy jàng alquran te duñ ko settantal ñaata nit ñoo mokkal alquran mais noo xamee ne mokkal na alquran bu ñu taree wala ñu wax la ko mais du feeñ seeni pas-pas du feeñ seeni jëf du feeñ seeni jëflante kon est ce que mokkal boobu am na njëriñ mu teg ci ni bu fekkonte ni alquran yooyu ñu ngi koy settantal ba noppi di jëfe orientation yi ñëw ci alquran. lama zaala mulkuhu wa sultaanuhu kon jullit ñi faaw ñooy féete kaw ñëpp waaye duñ nekk ci suufu nit mu teccil wala ma saaru aalatan fii maaishihim wa asbaabiha ala siwaahum kon du ñu dem bu sukkandikoo ci ñeneen ñoo xam ne ñoo leen di dimbali ci seen wàllu dundu àdduna sax kon alquran bu ñu ko wanee ginnaaw rek mu indi tey jàngoro ji nga xamante ne moo dal jullit ñi allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila alquran mooy téere boo xam ne boo bëggee jub alquran ngay jàng alquran ñëpp lay waxal bàyyiwul kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy kilifa xeet wi boo demee ci biir alquran day wax di yedd yonent bi alayhi salaatu wasalaam di yedd waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ayyuha nabiyu lima taxar lima tuxarrimu maa axallallaahu lak foofa saar woo ba mu jeex daanaka boo xoolee yar waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàmbalee ci yonent bi yedd ko ci soxna yonent bi door ñëw ci jullit ñi dénk leen ragal yàlla ak jëfe yàlla santaane loolu nag mooy li nit ki war a mën a jariñoo ci alquran mooy yëg ni alquran téere la boo xam ni kenn ku dañ ci am waar waaw lettre la jox nga mokkal ko te xamoo li muy tekki ndax dañ ci jariñoo déedéet kon nag nañu góorgóorluwaat ci jéem a xam alquran ak di jéem a settantal alquran alquran mooy téere bi nga xam ne moo dajale mboolem xeeti xam-xam yi am njariñ lépp loo xam ne mooy yiwu àdduna ak àllaaxira yàlla dëxëñ na ko ci biir téeram bu tedd bi di alquran ci alquran ci la ngëm yàlla di dolli koo ci xol waaye ci alquran ci la nit ki di yéege ci maqaama yi gën a kawe benn borom xam-xam nee na xeetu islaam wi li leen taxa a deltu ginnaaw du dara dul rek maanaam sàggane settantal alquran ak jëfe alquran nee na bu ñu delluwaatoon révisé waat seen bopp di jàng alquran di xam li muy wax di ko settantal di ko jëfe nee na ñu boobaa ñu mën a delloosiwaat seen histoire démb fañ nekkoon démb jiite àdduna bi dañ fay delluwaat waaye li fileeg ñu ngi dundee nekk alxuraan dañuy deltu ginnaaw mbokk jullit di yow mi nga xam ne siiti daa nekk mokkal alxuraan kenn du wax ne mokkal alxuraan amul solo aha kay waaye mokkal ay saar wala mokkal ay isit du mooy dëgg-dëgg jubluwaay bi taxoon ñuy wax mokkal dëgg-dëgg alxuraan mooy mokkal bu ko saxaaba yi mokkaloon mooy jàng alxuraan di jëfe alxuraan nga xam ne yow sa mokkal alxuraan nekkul benn période dama ko bëgg mokkal ci ñaari at ba juróom ñaari at ba waaye sa dund gi yëpp mokkal alquran la léeg boo déggee ñu naa la omar ibnu xataab radiallahu anhu wala doomam ibnu omar eh, ngi jàng suratul baqara si juróom at am na ñoo xam dañ naan la omar booba boroom kër la woon loolu moo tax maanaam amuloon jotu di jàng toujours ñi naan la xel mi neexul woon déedéet <laughs> déedéet ñoom dañ doon jàngee alxuraan ak ñu bokku ñoom jànguñu woon di mokkal di dem aaye bu ñu jàng dañ koy jéem a xam jëfe ko door a jàll bi ñu des mooy suratul baqara ci boppam dafa wàcc ci diir bu yàgg bi yonente bi gàddaay yàlla suratul baqara tàmbalee wàcc ba ci atu fukkeel ci gàddaay kon kooku kenn mënu ko mokkal ci benn ci benn at wala ñaari at kon ñoom noonu la doon jànge alquran mooy jëfe alquran ak jàng alquran ni seen procès dund gi yëpp la waaye tënkuñu ko woon ci benn at wala ñaari at ndax li leen yitteloon mooy jéem a xam alquran ak jëfe alquran mbokk jullit bi alquran jii nekk tey suñu loxo ñu koy jàng di ko jàngalee suñu daaree ak école yi mooy alquran ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal ay sahabaam saxaaba ya nga xam ne ñoom la alquran defaroon démb ay nit lañu comme ñun du ñu ay malaak kon lan moo tax ñun mënuñoo mënuñoo avancé suñu wàllu diine lu tax mënuñoo avancé suñu wàllu àdduna ñàkk a settantal alquran kese moo ko waral kon jullit ñi faw ñu delluwaat ci jàng alquran di settantal alquran bokk na ci li jëriñ nit ki ci alquranu karim wala mën a jëriñoo alquran mooy jéem a teewlu maanaa alquran yi ak xam li alquran di tekki loolu nag kenn ku ne am ci waar kenn ku ne am nga ci waar suuratul faatiha kese jël ko nga dem ci borom xam-xam bu la doy mu firil la ko nga xam li faatiha di tegtale ak lu muy jubluwaayam sooy julli ngay mën a teewlu faatiha jooju bëri waa na koo xam ne mu ngi diggu alxuraan di jooy te boo ko laajoon looy looy jooy mënu koo xam xamul luñ jooy mën naa am sax waa àjjana la ñuy bégal muy jooy parce que xamul luñ wax kon kenn ku ne war naa def effort boo mënta firi alxuraan yëpp it faatiha nga xam li muy teg saar yu gàtt yi nga xam ne mooy amma ba suuf nga xam li muy tekki ba boo ko dee jàng yow sa ci bopp ci jullit farata wala jullit naafila nga mën a nekk koo xam da ngay dund maanaa aaya alquran yi alquran jooju di jeextal soxol ndax borom ne wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatum imaanan ñi xam ne ñoom bu ñu jàngalee seen bopp alquran wala ñuy diglu alquran ku koy jàng daf leen dolli ak ngëm yàlla mooy ki xam ne alquran di tekki waaw bu fekkente ni loo ko mën a tajwid tajwid la dolli ak ngëm yàlla ngëm yàlla gi wala mooy dolli ak ngëm yàlla waaye njàng mu neex mi may la loolu bi ci topp mooy nit yëg ni alquran ji ab bataaxal la leetar la bu bàyyi ko suñu borom tabaaraka wa taala ñëw ci moom waa leetar bi nag benn nga mën koo firil sa bopp jàng ko xam lañ cee wax nga jëfe ko lañ cee tere nga bàyyi ko mën loo ko nga dem ci ku la tane waaye teg ab kaamil di ko parfum subaa ngoon guddeeg bëccëg du mooy jubluwaay bi déedéet jubluwaay bi mooy yow da war a xam alquran yàlla li mu bëgg mu ko digle ci biir alquran li mu tere mu ngi ci biir alquran noo defee santaane yi noo defee tere yi faaw nga dem jàng téere bi xam ko mbokk jullit yi jaam bi jamono bi muy jàng alquranu karim war nay bàyyi xel bu yàlla di tagg ñi nga xam ñoo ragal yàlla wane ne ñoom lay dugal ëllëg aljana ñoom lay nangu seen jëf ngay xalaat yow kañ ngay bokk ci ñu ragal yàlla war ndax bokk nga ci déet ndax bokk nga ci ñuy toroxlu suñu borom tabaraka wa taala wala déet ndax bokk nga ci muñkat yi kañ ngay dëddu àdduna kañ ngay wuuteeg sa bànneexu bakkan yooyu mooy question yi nga xam ne bu ko jullit bi dee laaj boppam ci buy jàng alxuraan di ko jéem a tontu kooku dana ko may muy avancé ci wàllu diineem ngëm yàllam di yokk waaye su dul loolu moom déedéet alxuraan ji muy jàng du ko jariñ waaye awlaay la doon ci kawam loolu yi moo tax jàngoro jooju mooy ñàkk a settantal alxuraan ñàkk koo jëfe ne dana jàng alxuraan ba mokkal ko waaye après boo dajee moom ci mbedd mi wala ci yenn milieu yi bu ñu nee kii mokkal alxuraan doo ko gëm lu tax parce que li ñuy teewoo woon ci moom wala moom li muy teewoo woon mooy mën a jaar ci baati alxuraan yi mais sonnewul pour xam li alxuraan di tekki sonnewul pour jëfe alxuraan kon nag jaar na ci école yeeg daara yeeg euh, université yeeg ñu fexe ba dundal fànn goo gi nga xam ne mooy fànn settantal alxuraan ak xam alxuraan te loolu nag muy mën a am ci firi alxuraan bi alxuraan bu ñu ko firiwul kenn du ko mën a jëfe te alxuraan nag firi ko taxul nga dégg ko ndax soo toogee bu koor ñëwee ngay tafsir iyaaka yow dong naabud la ñuy jaamu wa iyaaka yow dong nas la ñuy la ñuy sàkkoo dimbaluk yaa ngi takk say ndomba yaa ngi takk say xaaw yaa ngi takk say béjjën <laughs> yow li ngay jàng dégguloo ko iyaaka naabud wa iyaaka nasta'iin boo jàqee keneen ku du yàlla ngay woo iyaaka naabud wa iyaaka nasta'iin booy waat ci keneen ku du yàlla ngay woo iyaaka naabud wa iyaaka nasta'iin sa àjjana yaa ngi ko teg ci keneen ku dul lu dul alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yow alxuraan ji ngay jàng xamuloo ko dégguloo ko loolu moo tax kon jullit ñi loolu message la boo xam ni ñu koy lancé kenn ku ne am na ci warugar ki mën a jël téeréem dem di jàngi tafsiru alquran te léegi man nga koo am sax sa kër téléphone yi am nañu firi nañu alquran nga jéem a diglu tafsir boobu yaa xam ci làkk woo ko déggee wala nga ut koo xam ne mën na laa jàppale yaa sa waa kër leen firil alquran wala nga dem di jëli ko boo ñëwee ko firil sa waa kër ndax fatiha dong am na ñoo xam ñu ngi koy jàng te xamuñu muy tekki fatiha jooju la mën a jëriñ lu bëri bëri kon mbokk jullit yi li seetlu jamono yu mujj yi mooy nit ñi yittoo wàllu tajwid wàllu tajwid mooy neexal njàng mi ku mën a jàng kus ñëw sa da nga fexe ba ñu jox la ab micro nga jàng ngir wane sa baat neex na ci alquran wala mokkal nga alquran dem nañ ba nga xam ni sax kenn ku ne li muy sonne mooy xeeti njàngin yi da nga yittewoo diw li lay jàng diw li lay jàng diw li lay jàng mais la ñuy jàng yoo xamoo mooy la am na kuy jàng Maalik yawmi diin am kuy jàng Maalik yawmi diin lan mooy Maalik yawmi lan may malik yow mi diin lan la jariñ malik yow mi diin ab tëkku la foofu bi yàlla na bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim malik yow mi diin wala malik yow mi diin tëkku la waaye yow mi jàng malik yow mi diin jàpp ni ëllëg am na ku la mën ràmm ci dul ndigal suñu borom tabaraka wa taala jàpp ne bis penc boobu am na keneen ku ko moom ku dul suñu borom yow li ngay jàng ban jëriñ la la du la jëriñ dara kon nag faaw ñu jéem a xam alquran li muy teg dëgg kenn waxul ni amul solo ah tajwid am na solo ndax alquran moo wax ne warattilil qurana tartila waaye nag tajwid boo xamante ne nii àndut ak settantal alquran àndut dégg alquran njariñ la bëri wut cheikhul islam ibn taymiya nee na nit ki ba mu def yitteem rek ci ñu bëri li ñuy sonne te boo xoolee daanaka day dox seen digganteeg leeru alquran dëgg-dëgg mooy dañuy xaabaabal di ëppal ci xeetu ahkaamu tajwid yi ci li ñuy woowee tarqiq ak imaal ak yooyu ci la ñuy def ci seen dund yëpp waaye nag maanaa ya ak sens gi xamuñu ko loolu moo waral nga mën a gis ku mën a jàng alxuraan a neex a a neex ba mën parce que la muy jàng xamu ko la muy jàng xamu ko kon ni koy jëfee kon nag faaw ñu delloosiwaat fexe ba alxuraan jooju yi ñu koy settantal di ko jëfe ndax loolu moo doon jubluwaay bi tax borom tabaaraka wa taala wàcc ci alxuraan alxuraan dafa ñëw pour xamle suñu borom tabaaraka wa taala mais boo jàngee alxuraan mokkal ko te xamoo yàlla amul njariñ dafa ñëw pour defar jikko yi dafa ñëw pour baaxal doomu aadama yi soo jàngee alxuraan te jikko yi alxuraan jikkoowuloo ko bëriwul den alxuraan dafay gaaral di exposé xeet yi fi jaaroon ak ni yàlla jëflanteeg ñoom ngir nga mën a roy ci yoonu ñu baax ña ngir bu ëllëgee nga teeri ci teraanga ji nga xam ne mooy këru aljana maanaam moytandiku yoonu ñi nga xamante ne ñoo sànq ñoo ñi réer waaye yow mi nga xam ne yaa ngi jàng ihdina siraat al mustaqima siraat alladina an'amta alayhim xeyril maxdubi alayhim nga ni maxdubi alayhim mooy yahudi déedéet maxdubi alayhim mooy képp koo xamante ni daa topp bànneexu ba kanam bañu jaar siraat al mustaqim wala daalin nga nasaraan yi fekk wala daalin mooy képp koo xamante ne day jaamoo yàlla ci bidaa wala ci réer su fekkente ne yow sax jaamu yàlla ci làmbati nga ko teg yaa ngi ci biir wala daalin bu fekkee da nga fay bàyyi sunna dem ci bidaa di ci jaamoo yàlla kër yee ay mbir sos ay mbir di ci jaamoo yàlla tabaaraka wa taala yaa ngi ci wala daalin boo xamee dëgg gi teg sa tànk ngir intérêt bu mu manti doon yaa ngi ci wala daalil kon nag yooyu maanaa yooyu sens lañuy war a fexe dellu si waat mu dellu si nit ñi dëgg la mokkal alxuraan dafay war des ba faw xeetul islam am ni mokkal alxuraan waaye nag li tax ñu koy jariñoo mooy jéem a xam li muy tekki jéem a jëfe alxuraanu karim alxuraan day waaraat yàlla day bégle di dig waaye di tëkkuwaat ki xamul li ñuy digee nu mu koy sàkko ki xamul li ñuy tëkk nu mu koy moytandikoo alxuraan da fees dell ci wane al mooy fayu ñi nga xam ne ñoo jaar ci rëdd bi nga xam ne mooy siraatul mustaqim ak fayu ñi nga xam ne ñoo jaar ci safaan ba kon ki jàng al alxuraan ci gàttal war naa góor góorgóorluwaat ba jubluwaayam du nekk rek jàng araf yi tajwid ko ba mu neex waaye na fexe jubluwaay bi gën a kawe loolu mooy xam alquran settantal alquran jëfe alquran mbokki jullit yi maa ngi daanale ci dénkaat suma bopp leen dénk ragal yàlla ak topp yàlla di dénk suñu mbokku jigéen ñi ñu gën a góorgóorlu rawat ñi nga xamante ne ñoo nekk ci néegi sëy warugar yi leen war seen diggante seeni borom kër seenu njaboot ñu góorgóorlu ci alxuraan daa digal jigéen mu gàtt ab tànk gàtt aw làmmiñ di toog ci biir këram suñu borom nee na wa qarna fii buyutikunna waaye jigéen joo xam ne war naa yar ak njabootam tette leen teg leen ci yoonu siraat mustaqim xew wu am mu dem programme bu am mu dem kooku du yar ak njabootam déedéet nañuy toog ci kër gi génn bu mënta ñàkk na nekk génnu farat jigéen ñi ñu moytandi ko portable yi jigéen ñi dematuñu marché heure dootuñu ñëw heure du njëkk añ heure dootuñu julli waxtu julli juróom naafile sax taluñu ko toujours ñu ngi ci portable borom kër bu mu saan liggéey bu wàcc soxna si day ñëw gàttandu ko may ko ndox njaboot gi toog ñuy waxtaan léegi bu ñëwee nuyoo yaay jaa ngi ci portable yi doom yaa ngi ci portable yaay ñu ne doom ji wala jànq bi liggéey ci kër gi ah may ko ndox mu naan defaral ko añ nangam nangam lii mooy li am portable yi mënees na cee jariñu bu baax a baax a baax a baax ci ki nga xamante ni yàlla may na ko mu way te ñor waaye mënees na cee yàqule ba fàww na te yàqute googu ñu bëree bari bàyyi wuñ ko xel ba tax na kon maa ngi dénkaat ñëpp waaye jigéen ñi surtout ñu gën a góorgóorluwaat ci seen néegi sa yi gën góor góor déggal seen borom kër yi ba ñu nekk ay jigéen ñoo xam dañuy fipp parce que bokk na ci loraangay portable yi bépp jigéen boo xam ne mu ngi yor portable yi dugg ci website bi ñu koy ay théâtre rek dañuy yeeteeg ay bu yàggee mu fipp lam nangoo dootu ko nangu tàmbalee diir borom këram mbagg problème am divorcé am ñu daal di dàqali ko njaboot bi te saxaroo kon nañ moytandiku bu baax yi nga xam dafa ñëw nekk ay jumtukaay yoo xam day yàq portable mën nga cee jariñu di diglu alquran di diglu ay waaraat waaye nag nga bañ a jéggi loolu dem ci loo xam dafay yàqal sa àdduna tey jii balaa ëllëg alaaxira ibadallah aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazima li wa lakum wa li saa'iri almuslimina min kulli dambin wa xatia fa astaghfiruhu yaxfir lakum innahu huwa alghafuru rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabiin ajmain di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak di jégalu ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh